voilà ñun suñu parti bu ñu tuddee alliance patriotique du millénium ñu nekk nañ candidat à la candidature donc maanaam dafa am ay jeego yu nekk sunu kanam caution bi moo ngi ci parrainage citoyen bi moo ngi ci il faut ñu jéggi loolu pour mën a wax officiellement nous sommes candidats à la présidentielle il faut respecter aussi les sénégalais donc loolu dafa am importance mais ñun suñu parti li ñu différencier mooy déjà dañoo am juróomi banqaas banqaas yi nga xam ne ñoo war a téye millénium bi nga xam ne moom la ñuy prôné millénium wax naa ko sànq mooy troisième millénaire africain bi nga xam ne dafa war a doon euh, xarnu boo xam ne dañ ci war a gis suñu bopp léegi pour ce faire juróomi pilier patriotisme parce que ñun loolu tax ñu tudd alliance patriotique panafricanisme mais il y a surtout l'entrepreneuriat loolu daanaka parti yi koy développé bariwul donc ñun du ñu xool du ñu xaar nekk député nekk maire wala ministre pour jàppale ndaw yi donc ñun dañ leen di jéem a buux si ay GIE créer leen de l'emploi à travers ces ak des activités pour que ñoom ñu mën a gis seen bopp donc loolu c'est une différenciation développement personnel théorie la boo xam ne ma tubaab yi ñoo koy développé alors que ne dañoo war a defar nit ñi defar nit ñi mooy lan yow bëgg nga am ay député bëgg nga ne am ay maire foo les former foog nga dem yóbbu leen ñu jàng nu ñuy nu ñuy téye euh, alalu alalu baytu maal ñu jàngal leen aussi nu ñuy téye projet projet de bout en bout pour que bu ñu demee ba nekk ay maire nekk ay député ñu xam nañu seen doxalin bu ñu war a def donc loolu yëpp bokk na si lu ñuy différencier beneen différenciation mooy lan mooy ne ñun boo xoolee paysage sénégalais politique bi euh, PDS moo fi nekk ak PS ñeneen ñëpp si bu ñaar ñooñu lañ jógee ci ñu reñee fu ñu nii donc ñun jógee ñu si ñooñu ñun sénégalais lañ fii lañ jàngee fii lañ defee lépp te ñoo ngi créer suñu mouvement citoyen jëm na si politique bi mosuñu jaar si parti politique donc ñun dañu doon ñoo xam ne on prône pour que ñu jóge ci 60 euh, ans yi nga xam ne wala 63 ans 64 ans yoo xam ne gis nañ ni deful résultat il faut que donc sénégalais tourné wu vers ñeneen ñoo xam ne dañuy def politique autrement et puis beneen chose ñun dañuy am candidature pour présidentielle incha allah mais defu ñu ñëwuñu rek tëpp def ko dañoo génne benn livre benn téere ñu def ci ay points de développement ci santé wérgu yaram ci éducation ak lépp li nga xam ne Sénégal da ko soxla ak industrie loolu yëpp day permettre à ce que sénégalais bi buy voter pour ñun wala bu ñuy parrainer mu xam ne ñii kat am nañ proposition concrète donc loolu moo ñu tax a jóg moo tax ñu ñëw woo leen pour ngeen ñëw déglu li ñu leen di proposé pour le développement du Sénégal gis nañ ko tamit ci arène politique beeg ku nekk rek ak say programme mais tamit dañ fi nemmeeku ay rëkk-rëkk ci secteur euh, boo boo laalee rek yow bu la yàlla mayee ba nga nekk njiitu réew mi. Mhm. am na ban point stratégique nga war gën doxal euh, ngir mën a saafara ni mel. sànq si nasaraan waxuma ko mais ñun dañoo am 19 actes euh, fondateur maanaam fukk ak juróom-ñeent mhm. yoo xam ne dañ koy teg premier bi mun naa la si limal quelque premier bi mooy mënoo fi am. ressource naturelle muy or muy petrole muy gaz loo xam ne defaruñu ko si réew bi ba pare soo ko jaay donc duñ ko génnee si dëkk bi te defaruñu ko fii sauf contrainte maanaam ñu am benn gàllankoor boo xam ne tax na ba mun ñu ko mun ñu ko def deuxième chose bi mooy franc CFA waxuma ko parce que abordé wu ma woon sujet économie et finance franc CFA da nga génn soit ñu dem si ECO CEDEAO bi nga xam ne depuis presque 30 ans ngi nii ñoo ngi ciy liggéey pour am benn monnaie boo xam ne su su Afrique moo koy moom ñu am suñu koom-koom bopp soit maintenant ñu jël suñu koom-koom suñu koom-koom bopp donc loolu yëpp il faut ñu def ko parce que 50 pour cent say am-am ci commerce extérieur yi nga bëgg ko yóbbu dans un compte d'opération en France fële na le te et ñoom ñu yore planche à billets bi nga xam ne moom mooy tëb sa sa sa monnaie loolu c'est dangereux il faut pas laisser sa monnaie ci loxoy keneen da ko war a téyel sa bopp donc franc CFA da nga ko war a téye yeneen politique yi un champ une famille yooyu j'en ai un travailleur un toit dès bu mu commencé liggéey rek nit ki war nañ ko mën a jox benn euh, kër boo xam ne dëkkuwaay loolu dina permettre mu dal mu envisager sereinement sa vie te puis bu ñu koy dagg dagg boo xam ne du ko yëg yeneen chose yi mooy réformer le travail parce que travail ñun 8 heures 17 heures mais amuñu benn résultat du ñu évaluer performance nit ki fu muy liggéey est-ce que dëgg-dëgg il est efficace wala déet te puis tant d'heures pour zéro résultat xale yi nañuy teel a yeew man pour man mënoon nañ ko wàcc ba 10 heures wàcc 17 heures ba pare ñu teg ay jumtuwaay yoo xam ne dina tax ba nit ki buy liggéey nañ ko xam bu dee à 100 pour cent de rendement nañ ko xam bu dee 5 cent de rendement nañ ko xam ba pare payoor bi ñu linké ko ak moom rendement am maanaam lu muy liggéey est-ce que efficace na wala déet loolu yëpp ay mën naa si lu bëri mais damay yem foofu rek pour dire ko boo leen liiree livre bi di ngeen gis ay act yu bëri yoo xam ne posé nañ ko pour développer Sénégal. Mhm. ni comme ni ma ko waxee sànq si nasaraan rek ñun lu ñu jàpp mooy lan mooy ne dañoo war a concentré wu ñun parce que suñu parti la ñoo ngi commencé di jug ñu bëri xamaguñ ñu ñoo ngi ñuy xam si dañuy concentré wu suñu école du parti. concentré aussi euh, jumtuwaay yi nga xam ne mooy permettre étudiants yi ñu jóge ci front bi étudiant sa place c'est pas au niveau de la grève wala mu de la rue étudiant dafa war a dem jàngi ji pour que ëllëg tubaab bi bu ñëwee mu am interlocuteur fiable pour mën a développer dëkkam donc ñun dañoo créer céramique cercle des amis cercle de réflexion des amis du campus pour loolu donc dañuy concentrer aussi ñun ñoo ngi nii di utiliser ay parrainage citoyen donc boo xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg taluñu di saytu yeneen ñi li ñuy def maintenant bu ñu demee ba cappaandaw bi ñu xam suñuy parrainage mat na matul mën nañu ouvrir au parti politique parce qu'on les respecte donc mën nañ xool parti bi ndax mun nañ ànd wala mun ñu ànd et cetera loolu suñu kanam la nekk mais ñun lu su doon suñu mbébét dëgg dëgg dëgg mooy ñu fexe ba matal suñu parrainage citoyen pour mën a ñëw suñu projet de parti ñu proposé ko au Sénégalais ñu développe Sénégal. ñu jeexale mi la ñoom ndax yaakaar nga ni euh, plan bi nga teg nii mën nga cee yaakaar ak doyen ci allahu rabbi gëm nañ ko ñoo ngi ciy dox ay sénégalais lañ ay ndaw Sénégal lañ euh, amuñu yenn koom-koom yi nag parce que damay liggéey rek laa nekk duñu ay milliardaire waaye am nañ xalaat yi ñoo ngi koy sotti. metti na nag yoon bi waaye yàlla mu ñu koy yombalaal donc ñun am nañ yaakaar ne sénégalais yi bés bu ñu liiree livre bi te dinañ vulgariser incha allah le programme parce que début bi la rek mais après dinañ fexe ba sénégalais yi jot si plus amplement am na ñoo xam ne peut-être 15000 day metti si ñoom mais dinañ ko libéraliser si kanam pour que ñoom ñu gis suñu programme ñu xam lan lañ bëgg di def pour industrie pour éducation pour euh, santé bi parce que yooyu yëpp ay domaine stratégie la incha allah gëm nañ ne dinañ ñu votal jërëjëf